من كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكري لرب كريم من كان شكارا وأرتجي منه الدارين أبكارا كتاب شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وسكرا وذكارا وجهت وجهي sahri nabi sanadi lil akrami rafi wahabi zakara وتذهيره لدهر كفارا إني أخاتمه في البحر مغتربا ولم يزل جل قاهرا وجبارا fajahtani rabbi bil ala mooy taala teewit ci jitaay bi ngeen xam ne rek daal kilifa yi fi teew kunta mbàkke faal ñépp ñu ngi leen di nii di leen jox seen wàcc waay ak loo sëñ mat loo ngaabu yal na yàlla dool laa dëgëral ci sa waar xam nañ sa taxawaay xam fi nga bokk ci kër Seex sàmba waaye sëñ Abdou Hakim Fall moom sëñ Basiir Fall ak sa ginnaaw fekkoog sëñ xaadim yàlla daal ko ci dëkk bi bàyyam boole koog alaaj moom dagal ko parcelle mu dëkk ci dëkk bi bu ñu ko ca daara ja rek mi ngi ci dëkk bi mi ngi nii ci sawet wet doole dëgëral te yàggal ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di yëkkati ay kàddu yoo xam ne dañ ci jéggulu ndax euh, dafa am noo xam ne noonu lañu baaxoo doxe Serigne Touba jàngal na muy képp koo xam ne day seen kilifa su ngeen toogee euh, lépp ci loxoom la war a ne lu ñuy wax lu ñuy def moo tax kàddu yi ñu yëkkati dañ ko yëkkati rek ngir dalal kilifa diine yi fi teew yëpp ak bokki jullit yëpp te di ci jiital Serigne Modou Lo mu Cheikh Ibrahima Lo euh, ñu xam ko ñun ñëpp wala ñu bari ci ñun xam ko muy koo xam ne yal na yàlla yàggal taxawaayam ni ko sëñ Abdul Baax yi léegi te gën ko dëgëral te gën ko sàmm te sàmm ñëpp ñu ngi koy dalal bu baax di dalal kilifa yi diine yi waa ndànk ak sëriñ bi Mahmadan doon wax léegi ak képp koo xam ne rek da fi ñëw nga fi ci turu lislaam Euh, dañu bëggoon ñaan rek ñu may nu dañu ñu may ndax liggéey bi gannaaw sunu wayjur wa daf nu santoon ñu di ko ci taxawal ndax liggéey bi sunu wayjur wa dañu santoon ñu di taxaw muy alxuraan muy alxuraan ñu di ko tàmbulee waajale bis bi ak guddi gi ñu bis bi guddi gi te alxuraan te alxuraan mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne lu mu jëkk lu jëkk lu mu jëkk manees na ci yaakaar barke manees na ci yaakaar barke auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ihdina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala ddallin bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufaan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufaan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufaan ahad bismillahi irrahmani irrahim qul audu bi rabbil falaq min sharri ma xalaqa wa min sharri gaasiqin isaa waqab wa min sharri nafaathaati fi l-uqadi wa min sharri xaasidin isaa xasad bismillaahi rahmaani rahiim qul auudu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaas min sharri l-waswaasi l-xannaas allazi yuwaswisu fi suduuri nnaas minal jinnati wannaas subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin aus billah min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alsaadiqi alwaadil amin wa ala alihi wa ashaabihi wa taabihin wa daaina bi daawatihim ila yawmi ddin ya rabbi lisrax fi dawaamin sadri sarxam bihi akunu misla badri nawwir fuaadiya wa lisrax sadri wajxal jihaadiya ka yawmi badri bokki jullit yi bokki taalibe murid yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi di bisu ngën ji mbindéef yonent bi aleyhi salaatu wasalaam muy bis boo xam ne dafa war ci bépp jullit mu di ci fàttaliku jëmm ju tedd jooju muy muhammad alayhi salaatu wassalaam di ci soññ suñu bopp itam di ci soññ bokki jullit yépp te lii ñu def léegi moo ci war a jiitu muy wàcc ci alxuraanul karim ñaanal ci jullit ñépp ndax bisu ngën ji mbindeef la te moom la suñu boroom wàcce woon alquran ci moom wax ne ko inna arsalnaaka saahidan wa mubassiran wa nasiran wa daayan ilallahi bi isnihi wa sirajan munira wax ko it ne ko alquran jooju ak képp ku la ci mën a wen ginnaaw wala mu bëgg la koo yàqal nañ xam ne inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahaafisun kon kooku ba ba àddunay tukki alquran moo mën a gunge jullit ñi di di leen sàmmule seen diine te it kenn ku nekk war di ci sukkandiku te di ci man di gàggantiku foo toll ndax lépp a ngi ci biir alquran kon soññee la war na ci ñi nga xam ne ñooy doomi soxna yi comme nii ko sëriñ Xaadim waxe léegi nga xam ne ku ci nekk sa wayjur lim la jàngal teg la ci mooy alquranul karim bëgg nga jàng ko xam ko di ko xamle ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne xayrukum manta taallama alqur'ana wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alqur'an ba noppi di ko jàngale moo tax sëriñ Tuuba daf daan jàngale ne mboolem koo xam ne aju nga ci moom walla ngay koo xam ne ñi ngi lay tudd ne sa wayjur jullit la ba noppi di morit bu nu nangul ak moritam nee na yow la la war mooy nga jàng alxuraan ginnaaw boo ko jàngee ba noppi it nga di ko jàngale ndax loolu daf cee mas di wax lenn ak ci waa këram ne leen day ku ci jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale bu dee mbirum àdduna la soxlawul nga di ko wuti fenn ndax bu boobaa la nga aajowoo ci mbirum àdduna bu yégee ne soxla nga ko moo naan ñokkee te fa nekk jóg wut si la mu ne kon nag bëggoon naa ngeen xam bu baax yéen ñi nga xam ne yéen ay doomi ay yéen ay ay doomi soxna ñu di leen tudd di ma tudd ngeen xam ne àdduna moo ma soxla fekk si ma waaye mosumaa tax a jóg mu ne àdduna damaa jëm ci sama boroom àdduna topp ma di ma aajar boppam di ma wax ne nii laa mel xanaa gisoo li ma làmbool ak li ma yor ak li ne ci sama biir nee na ma xam xel ne su ma ko geesoo danaa ko topp te duma ko dab te duutuma àgg ci suñ borom mi ma taxoon a jóg nee na foofa nag diggante boobu dama mel ne ku saañ samay nopp gëmm samay bat fatuus ne dann sama borom ba àgg ci moom nee na bi ma àggee ci sama borom nag la àdduna ñëw ne ma wut si woo ma de man maa la wut si ñëw naa nag te duutuma dellu moo taxoon bis mu ne wax ci njaareem ne na ngeen xam ne lu mata sonne de sonne naa ko ba noppi toog mu egsi rek a ci des kon yéen nekk leen ci li ngeen war a nekk liñ leen war a warlu nag bu ci seen yoon nekk bu leen ko lijjanti koo gis mu sonn rek dafa bàyyi la ko war di lijjanti lañ ko warlul waaw mënoo nag bëgg a fayiku te lëngoo liggéey yow liggéey bi mooy sa warteef liggéeyal ki la war a fay bu waxtu wa jotee dana la fay moo tax mu ne nekk leen ci li leen war li ñu leen warlu nag bu ci seen yoon nekk mu ne nag ku ciy jàngale tey jàngale di liggéey tey jaamu yàlla nee na loo war kon wuti loolaa lay fekk si mu ne njàng mi li tax mu baax day tax nga sore ak bàyyi ma yi ab taxawaay kenn du la tëkkaleeti ak bàyyi ma moo ne boo dee jàngale yi danga am tuyaaba ju rëy mu ne liggéey bi it li tax ma bëgg ngeen boole ko ci boo dee liggéey da ngay manal sa bopp te ku manal sa bopp kenn du la sañal mu ne boo liggéeyut nag danga topp ci koo xam ne moo lay manal te ku la yàgg manal bu yàggee mu sañal la kon fa mu lay sañale yàlla nay fu neex suñu borom mu ne jaamu yàlla gi itam ni ngeen koy defe mooy dangeen ngeen góor góorlu ci sellal ko ndax jaamu yàlla mu ne day taxa rafet njort ci sa kërug ëllëg muy aljan na kon foofu rafet njort la wax waaye kon day waroo lool ak morit yi nga xam ne dañu naan du ma dugg saxaar di yenu sama bagaas sëriñ Touba mësula wax loolu mësul ne kenn nekkal ci lu la neex boo faatoo ma dugal la àjjana mësu ko wax moo tax mu ne kim jàppe dof bu kannasu mooy ki nga xam ne defe na ne mën naa dem àjjana te nanguute jaamu yàlla sa may yetlu bu jannatim bila ibadatin fa innahu la yuqbala bala bi ci topp mu ne ñi aju ci manit di wax ne ay murit lañu bëgg na maa xamle ñooñu ñooy ñan ndax nit mën naa ne man naa wax ne man murit laa te man mi muy tuddoo fekk na man boolewuma ko ci murit yi ndax yoon wam jaar bokkut fi ma jaar moo tax mu ne kon ki mu nekk murit bu bëggee xam ci man la bokk wala déet naa ko leeral muy yaa na koonoo muminin wa muslimina taahatan wa muhsinin nee na ki aju ci man daal te man nangu ne am murit la bu aju ci man day nekk ku gëm yàlla nekk jullit piir buy topp yàlla te di ko rafetal nee na bu boobaa ak fu mu mën a nekk yëg naa ne ci man la bokk ku wàcc yoon woowu it nag da nga xam ne sa yoonu bopp nga jaar mayit bokkuñu fuñ jaar kon kooku na leer loolu nag daa mat di leeral ndax mbindi sëriñ bi damay faral di wax ne ku koy umpule walla ngay umpule sëñ bi yoon wi jaaroon boo yéree alxuraan ak sunna bu ca dara waroo ca lañ lay jàngal boo ko sañee weddil kooka la koy jàngal sëriñ bi jëful dara lu waroo ak alxuraan ak sunna kenn ku ne nag mën ngaa jël sa doxinu bopp ak di ko naxe nit ñi ngir bëgg koo moom àdduna te foofu la ñàkk gëm yàlla tàmbalee xam nga tumuranke gi ñu baree ngi tumurankeel seen bopp te li leen toxa tumuranke weesuwul ñàkk a xam seen bopp tumuranke dëgg mi ngi tàmbalee ci nga umpale sa bopp ndax boo umpalewul sa bopp da nga jéem a xam yaay kan nga jéem a xam yoon wi nga war a jaar te bañ koo wàcc kon loolu sëriñ bi foofu la nekkoon sëriñ bi doonut lu ñuy làmbatu ñiy naxe ci sëriñ bi nañu ko bàyyi ndax koo yàgg ndax ngir réyum xel te xamu ko bis bu ko yàlla dimbalee ba mu xam nax yi keroog la lay bàyyi koy wax dëgg nag dëgg gi mën naa metti ci njalbeen gi waaye bis bu xamee dëgg gi keroog la lay gën a jàpp kon yàlla nañu yàlla dimbale ci loolu ñu ñëw nag ci dëkk bi ñu ñëw tey ngir dolli fii siyaar ni ñu ko daan ñëwee bi fii alaaji sëñ Mahmoud Fall nekkee di alaaji Ndaama muy mbokk di wëllëre di taalibeb sëriñ Touba bu dëggal ndax kuy nekk taalibeb sëriñ Touba la lay gën a itteel mooy nga jéem a xañtu yoon wa sëriñ Touba jaaroon ba am lii mu am te mooy nekk ab jullit bu wér bu dëggal ak njullitu sëriñ Touba moo ko may coono mu daj yëpp mu daj ko bari na loo xam ne nee na nit ñaa ngi ma koy jiiñ ne ak wilaaya laa doon jëfandikoo wala xar baax nee na du ci lenn du wilaaya du xar baax ba ci lii ñu doon màggal bër ci démb ci ndakaaru muy julli géej gi nee na bu ko kenn jàppe xar baax na ñëpp xam ne sama digg ak sama borom rek moo taxoon ma def ko muy xam waxtu wa fa mu toll ginnaaw bu ma xamee it ci wàllu tawhid kan mooy suñu borom suñu borom bu waxee ne wa maa kaana si nafsin moo tamuuta ila bisnillah mu ne kon man ndegem kenn du dee ci lu dul sama ndigal suñ borom a wax loolu mu ne man bu ma géej gi wane it ma d'accord ne ci ndigalul suñ borom laa faatu kon duutuma ci amu naqar nee na géej gi suñ borom a ko sàkk sàkk ma kon bu ma wërta faatu tey géej gi mënumaa wan ndax ñoo bokk boroom te su ma waree faatu tey duma ci mere géej gi duma ci mere tubaab yi ma àndaloon nee na diggante boobu may sànni der bi ëwma dara lu ma leer ci ne duma faatu tey waaye nee na dama sànni taxaw ci der bi mu mel ne ciy xeer laa taxaw nee na kero it la ma jàpp du lu may damoo du dara damaa jàpp ne tey suñ borom bindul ne tey laa war a faatu ndax gëm na ne inna ajala laa isaa jaa laa yuaxar waaw comme dig bi bu accès du tarde du avance du retard foofu la nit ñi war di xool ñu baree ngi amee bàkkaar yu du jeex yoo xam ne ña ngi koy rënk fële ëllëg te dara waralu ko lu may ñaaw njort ak ñàkk gëm yàlla lu jóg nga defee ne sa moroomam doomu aadamaa la ko xañ te yàlla noppi na nit ki bi mu daataan judd la suñ borom programme léppam ku programme at yi nga fi dund ba ca waxtu yaag heure yaag lépp mu programme ko te bu waxtu ak see lu mu la fekkoon nga bàyyi ko fa na la programme sa wërsëg voyage yi ngay voyagé feebar yi ngay feebar lépp ku kullun fii mu mubiin ndegem nag lépp teg na ko ba noppi kon ku fa wàcc nag di ñaaw njort ci keneen nee na bari na kuy loru ci diggam ak moroomum doomu aadamaam ci pexe yi doomu aadama nee na doomu aadama doo ko ragal doo ko yaakaar ci alal ndax nee na nit ki bu yoree ay milliards nga yaakaar ko ca yaa yëgul waaye mi ngi wut lum ci dolli milliards yi doyu ko ki nga xam ne nag li mu yor doyu ko mënu laa jox ci loola la doy nee na nag moom du gis mukk suñ borom mi nga xam ne li mu yor du jeex te dana siiw ku ko ko laaj ba mu jox la ci moom la waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam wa isa saalaka ibadi anni fa inni xaribun ujibu daawata daa yi isa daan yi mu ne kon du ma jàkkaarloog kooku nekk mu ne siiw ku ko laaj ma bañ koo laaj di laaj sama moromam doomu aadama nee na ragal itam bu ma ko defee doomu aadama ne man dama koy joxi pexe ndax amuti pexe moom mënta rey mënta xamul ban bis lay faatu moom doomu aadama boobu may ragal nee na kon du ma ko ragal yàlla mi xam sama dund ak sama dee bu ma dee ragal kooku laay ragal lu bari nag nit ñaa ngi koy jox seen moroom bi doomu aadama foofu la leen suñ borom di maandoo ci ñoom nag seetaan la ba moroomu doomu aadama boobu lu mu la fexeel mu dal la ndax yow yàlla tëkkale nga ko keneen wutal nga ko moroom mu seetaan laa kooku waaye bu fekkoon lépp delloo nga ko ci suñ borom lu jógewul fa yàlla do dëppoowut ak dogalam ba kenn mënalu la dara nit ki day jiital yàlla ci lépp tawxiit boobu la léegi nag alaaji mii ñuy waxtaane itam lii mu nekkoon mooy li sëriñ Touba doon def rek mu teg ci bëtam xam ko di ko gëstu di ci dàkk bëggu Serigne Touba fii lu mu fi def tey jii bari na feneen fu mu def foo xam ne ay nit a nga cay jariñu waaye fii li fi def euh, ñu bari ku ci roy tey ci jëfinam yii wala nga yokk ci dal dana ko yokkal ca tuyaabaam yi moom itam kon loolu lu am solo la nit daa war di def loo xam ne ndax sëriñ Touba kat dafa woon ci njaareem ne. ba mu dajalee murid yi nga xam dañoo naroon a bew ci kër gu mag loolu amoon na fi bis mu dajale leen tombal leen tomb yi ne leen tey duma leen jàngal ci téere waaye ñi ci seeni xel neexut dama leen di tombal ay tomb tomb ba mu njëkk def da leen a bëgg njëkk a xamal ne na ngeen xam ne sama kër gii du peey daara la fab loxo bi teg ci dënn bi ne leen man mii duma buur ab sëriñ laa joxoñ leen ne leen yéen itam du ngeen di dak ay taalibe ngeen na ngeen ne leen na ngeen xam ne nag jaamu lu ma leen yàlla sama bopp laay jaamul yàlla da ngeen xam ne fee ñuy wax bis penc yaari yëf rek a cay tax a dem benn nga def lu la ca yóbbu mbaa nga wax lu la ca yóbbu ni leen mën nag defuma lu ma ca yóbbu waxuma lu ma ca yóbbu kon wutiwuma fa dara ne leen waaye teewul nag bu bis boobaa sama borom dana ma wutal barab boo xam ne fa laay nekk képp ku jaar ci yoon wa te wàccoo ko danga ma fekk fa ma ne ne leen yoon wa nag siraatal mustaqima la tudd ni leen na ngeen xam ne it gudd naa aw fan te gàttuma ab tànk wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fi daal ne yéen wolof nag gudd fan mi ngi de yéen a ngi jàpp ne mooy dund téeméeri at mbaa lu ko jege mu ne leen loolu du gudd fan gudd fan mooy lu say at néew-néew na nga jëfal lislaam lu jullit ñi mën a jariñoo te duñ ko fàtte mu ne boobaa lu say at néew-néew gudd nga aw fan Serigne Touba li mu fi jëf ba tax tey ñu bari di ci roy nekk fi di ko gëm 75 ans la dund juróom-ñaar fukki ak juróom mu ne loolu mooy gudd fan waaye du ceegeenu at yu bari. te jëfoo fi lenn lu lis lu jëfaloo fi lislaam lu jullit ñi mën a jariñoo kon alaaji itam nañ koy santale yàlla ndax mus ta neenal wenn waxtoom lépp loo ko mës a séen ci lu baax rek lay dox ak sàkku ngërëmul boromam luy dimbali jullit ñi ay fajukaay ay ji ay barab yi ñuy jaamoo yàlla ba ci fii ñu nekk tey yooyu moo mas di nekk itam fu ngoy mas di waxtaan it waxtaan wi du génn lii ak di la wax ay procès ak lu mu xalaat ci diine ji ak ci yoon wi bëgg a méngale jullit yépp nag ndax loolu la suñ borom santaane loolu it sëñ Tuubaa moom la daan dox moom daaw ci wut xej seen du tiijaan du murit du xaadir du lenn jullit rek nanga nekk jullit te loolu nag moo war ñëpp loolu moo war ñëpp jullit bu ne boo dee xool ci sa moroomu jullit la ngeen war a séq ak di jëflante ci diine benn euh, dox diggante du am seen diggante lu lu dul lu baax rek kon yàlla nañu ko yàlla fayal ci loolu te barkeel ab la liggéeyam ndax fee ñu jëm kat aw yiw képp fa ma mat a jëkkante ndax euh, xaala xataa euh, isaa jaa ahadahumul mawt xaala rabbi irjihooni laxaliya ahmalu saalihan ndegem nit day dem ba foofa naan suñu borom buñ ma mënoon a delloo àdduna ndax ma mën a jëf lu baax kon lu fa waay yóbbu ci lu baax waroo koo xeeb ndax dana baax foofa te foofu it bu bu nañ fexe ba xasanaat yi ëpp sa sayiaat yi ndax bu boobaa buñ jalee ñaari jal yi nii kat safaan bi ne nii lu baax li ne nii innal na sa yaat dañuy fob ci lu rafet li di ko effacer lu ñaaw li kon foofu lu rafet li nga am ci ab joor moo gën a wóor ba safaan bi buñ ko effacer it nga dese lu bari waaw te loolu li ko mat a gëmee sëñ Touba mii ñu bàyyi xel muy suñu kilifa bind na ko boo demee ci masaalik man ngi koy wax wa arxabul asyaa ilil amwaati raddun ila dunya mahal xayaati faxat li yaamalu saalihatan tam fahum in xafalu ndegem da ngay dem ba foofu ngay ñaan suñ borom cey su ma mënoon a dellu sa xemmem tef bépp loolu la ñu may ma fa waxtu su ndaw rek ma takkaat sama ndigg duutuma soxla dara ci àdduna xaw moo ne lu baax nii la amee njariñ fii ñu ne la nag dellu mën a tut a nekk waaw mu ngoog te loola fekk nga fa nga koy fekk lépp jale fa kon yàlla ñu yàlla dimbali ndax yii mu fi bàyyi yépp def ko fi aw yiw la wu muy fekk foofee yàlla bu ko ci cat jiitu ci lenn waaw suñu borom fay ko ci lu kawe njot fayaale ci mboolem ñi ko ànd ak moom njabootam gi itam suñ xel dal na ci ndax kat bu ñu fekkul woon mu yar leen ci nii muy sëñ Mahamadan mii di kilifa gi ak sëñ Modou ak seeni rakk ak bu ñu fekkul woon mu nàmputal leen ci lii bañ jaar ci yoon woowa a ah, ñu mel ne man de seenu ñëw fi du yomb ndax day am lu ñuy jeexital di ko di ko topp bu ñu xamoon ne bu ñëwee duñ fi fekk la seen bàyyi sampoon daan ko doxal suñu ñëw fi du yomb waaye nag ndokk ba nga xamee ne waxtu wu ne bu ñu leen gisee bu ñu leen gisul xam nañ ne wàccuñ yoon woowu ndax mësuñoo réeroog moom ci dara te it teg na leen ci yoon wi mu leen war a teg wàccuñ ca dara ñoom it matal nañ bokk matal nañ kóllëre yàlla na yàlla matal bokk ak kóllëre ci ñoom ndax kóllëre kat ah li tax mat di sàmm mooy loolu am na ku ko wax fee sànq ci saalu sëñ dan ba ci waxtaan wi génn ak indiwaat aaya boobu wa aw foo bil ahdi innal ahda kaana mas'uula dafa bokk ci li suñ boroom di njëkkalaat moom mooy mbirum kóllëre waaw kan moo ko gën a sàmm ak kan moo ko njëkk néewal doole suñ boroom du bàyyi dara waaw ndax fii mu ne li tax mbir yi mat di bàyyi xel fii ci àdduna lu fi waay man di def boo demoon tey ji tribunal dangay wut avocat bu lay layal di plaider sa mbir mën naa am la muy wax doon dëgg mën naa am du ko doon fële nag boo bëggee weddi cër yi ci seen bopp ñooy waxal seen bopp bu loxo bi ne maa defoon lii làmmiñ wi ne waaw maa waxoon lii tànk bi ne maa doxe woon lii bu boobaa yow nooy weddee dana jafe te kat fexe ba benn bis bañ a naax saay ci nun moo ëpp solo ndax jant bu fenk dana so te jant bis bu xas dem duutu dellu si fexe nag ba bis boobu lu mu néew néew ñu marqué la ci aw yiw te xam ne am na ñu ñu topp te gisuñ leen te mooy kiraaman kaatibiina yi yaxlamuuna maa tafaluun innal abraara la fi naimin wa innal fujjaara la fi jahim ñooñu dossier yi ñu yor ñi fare ci mbakkum ndeyjoor mi du ñu xaar dara ci lu baax dañ dañ koy daal di bind ñi ci mbakkum càmmoñ mi danañ xaar ab diir boo tuubul ñu marqué ko ñooñu nag buñ demee ba booba dossier yooyu lañ lay tegal ne yi boo bëggee weddi dara nag cër yee ko jëfoon ñooy taxaw fax kon yooyu yëpp nañ koy bàyyi xel ndax ñu mën a xaj ci yërmande yi suñ borom suñ borom nag lu bàkkaar rëy rëy rëy rëy wax na ne boo ko jéggalee boo ko jéggaloo mën laa jéggal bàkkaar bi xaw a jafe mooy bi dox sa diggal sa moroomam doomu aadama kooku moom da ko koy jéggalu yaag moom a ko séq bu la ko jéggalee duñu la ko topp waaye kooku moom suñ borom da ciy maandu bi nga séq ak suñ borom nag lu mu rëy rëy boo ca delluwut buñ la ko jéggalee boo ca delluwut mu jéggal la ko nee na foofu nag tuub ga la muy nangu mooy mu mel ne ay xal yuñ jàll fob suuf suy ci kaw wala doom nga dox téen ba agsi ci ni ci naxañ sa tànk ba xal yi lakk la na nga yëkkatee tànk daw doo xoolaat xal yi di ko ci tegaat nee na tuub gi it noonu la war a kon loolu ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole dimbali tàbbal ñu ci yërmandeem di sant njaboot gi di leen ñaanal yàlla suñu borom taxawu leen te barkeel leen bañ fekkee njariñul seeni njaboot te gone yu ndaw yi itam di sëti alaaji ndaama nañ xam ne kat lii nañ xool li seen jur yi di def ñiy sët ñi yëpp ak gone yu ndaw yi nañ bàyyi xel ci lii ñu leen tabbil ñii ñii lii fi alaaji def def na li ko war njabootam gu mag yi lii ñu taxawe def nañ li leen war yéen njaboot gu sew gi yéene ci des am leen jom te jéem a roy loolu te ëllëg ngeen jéem a noppal mag ñi xam ne kat kenn ku ne la nga def dong lañ lay fay bu ëllëgee góorgóorlu leen te déggal seeni kilifa te xam ne ñoom ñi déggal seen kilifa moo leen may lii ñu am kon lu ci nit tuuti tuuti it boo nangoo déggal sa kilifa dara jomb la ci loolu ndax liggéey bu ñu liggéey ba noppi la te li fi xas nekk du fi jóg ba mukk sëriñ Touba du maye di nangu képp koo xam ne am nga farloog itte jariñu ca cër ba ku ko sàggane yi cër ba dafay nekk ne la waaye kenn mënu koo toxal fenn kon ñu ngi leen di baal wax ko salaamaaleykum wa rahmatullah mbir mi gën a yaatu képp ku ci jot it dollanti koo ci Cheikh Mamadou Bachir yi noonu lay def kon loolu lu dal xel la Mahamadan waxoon na ma ko ci màggal gi nu xale yi taxawee ñoom ñoom maam ma waxuma wulu wax xale yi sax ñoo ma féete mag maam ma ak Pape Modou lu ñu taxawee ne def benn mel ni fas nañ yéene aw seen mag yi fas nañ yéene dugal seen loxo ci liggéey bi te loolu man dama ciy bëgg lool Euh, dama ci am xol bu lool te dama ci am yaakaar ju dëgërit ne danañ ci am ndam ndax yoon wi nga xam ne day moom la bàyyi ndaa ma xotti wala sax ma ne lii suñ borom jaarale ci moom muy liggéeyub lislaam bii euh, képp koo xam ne nangu nga ko cee jàppale lu guddee da nga ci am ndam ndax euh, nit moom amul lu mooy xol te ku xam ci moom dara lu néew noonu danga xam ne xol bu rafet la yoroon ku gëmoon yàlla ku bëgg lislaam ku bëgg doomu aadama bëgg nit rek waaw mas naa nangoo ci moom ci kàddu mu ne moom génnul daal suñ boroom yonente bi way jur yi sëriñ Touba ñi waaw nee na génnul foofu ci suñ boroom yonente bi sallallahu alayhi wa way jur yi sëriñ bi waaw daana ma daana wax it lu ma sa wax lu ci bari rek dama koy jàpp ndax nit moom boo xasee xam ci moom ak baax te lu baax rek ñor la lu mu wax da ngay jéem a téye loo ci mën a téye doo mën a téye lépp sax waaye loo ci mën a téye nga téye rek mas nañ taxaw fii oto taxaw ma li ci dugg di dem ngaay muy wax ak chauffeur bi naan ko na ngeen lu man jub rek ci laay dox ñi ma jur sax ci loolu lay ànd ñoom loolu yi dama ko téye woon waaw kon daal euh, ñoom modu Modou Mamma ak seeni rak Mouhamadul Bachir ak sëñ Massamba yéen ñëpp daal yoon waa ngi noonu góorgóorlu leen ni ko sëñ Modou waxee léegi rek am jom ndax lu baax moom ndaw yàgg na ci am cër ak am ci pas-pas euh, Seydina Ali karamallahu wajhahu booku mën na nekk ndaw xam ne lam yas ila sanamin waaw kon te xam ne ak ndaw li ko soxla dafa bari bu nu yàlla baaxee kilifa gu nu wan yoon wi nga xam ne moo gën tey ak ëllëg nag da nga ca naan dand rek te bañ a gestu leneen addina nag bari na yëngu seytaane yi du yokkat maanaam du découragé ci jéem a yàq waaye nañ topp kilifa yi rek ni ko sëñ Modou waxee nañ topp Modou jëwriñ bu sëñ dañ diglee ñu daal di cay taxaw rek su ngeen ko defee suñ borom mi yor lépp moo leen di aar moo leen di sàmm moo leen di dimbaleel boppam te koo kum dimbale rek nga xam ne am nga ndimbal wasalaamaaleykum yal na yàlla nangu yàlla yàlla gërëm jëfi yi jërë ngeen jëf sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa shukur ila waliyil mu'minin jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke ma jaarate wet yooyu rek naa fàgg وجاء ci yoon bi kenn fu ne def na fa daal nit ñi nit ñi mën koo jariñ ah, waaw boobu ñëpp la yebal dëgg yàlla moom bu dee dana ko poussé ba caata rek loolu dong la waaye moom nit ñi dafa am yoon bi waroon a teg yëpp teg na nit góorgóorlu rek góorgóorlu day mel ni jóg wax nañ ma ko kay wax nañ ma taxawaay leer na ma seen taxawaay fas na yéene aw nit ñu bari màggal Tuubaa gi gàmm bi ci على النبي وآله وقادني فوق المنى في تنسسي أحييت مولد النبي من نسسي وقادني فوق المنى في تنسسي